mais malheureusement condition de sécurité yi dajewul condition d' organisation yi dajewul mbër bi aussi ak si mu toll ci préparation warul jël yenn risques yi bu gisee insécurité am li gën mooy mu rocceeku dem yoonam c' est dommage que la presse mus di ñu def seen liggéey mais combat bi moo toll noonu parce que ëmma li mu woote moom la ko waa Pikine wuyu si tey daf leen lu ma leen mus a defal na ngeen ko fàtte benn titre laa leen amel mooy jël titre roi des arènes indiwaat ko Pikine ginnaaw bi mu rëccee magam Mohamed Ndao Tyson en 2002 mais ki nga xam ne moom la ko seqal ni moom li mu yor muy bombardier euh, da ko bëgg a téye ba dem rëdd mayewu ko abanewu ko saraxewu ko loolu mooy enjeu combat bi kii ni li ma yor joxewu ma ko kii ni ñaanuma damay ñëw jël si yóbbu Pikine loolu mooy enjeu combat mu nekk combat bu nga xam ne foo ko xalaat metti dina ko metti parce dayo bi moo il faut nga ku bëgg akara da ngay ñeme kaan te ki nga xam ne moo ko yor pour nga déstabiliser ko il faut nga indi com il faut nga indi fit il faut nga indi ko lu nga xam ne mbër mus ko ko indi loolu mooy lan mooy tey Eumeu boo xoolee morphologie bi mu yor boo xoolee préparation bi mu dem nga xam ni pare na pour bëre combat bu yàgg pare na aussi pour giita Ngaas ak Bombardier parce que Bombardier pour nga mën ko déstabiliser il faut nga xeex ak moom boo rek bëre ak moom parce que ponkal mu nga xam ne macha allah mat na bëri nga ak genn wàll balaa nga ko mën a yëngal il faut nga xeex ak moom moo tax ëma la stratégie bu mu war a adopté mooy ñëw toucher Bombardier xeex moom jéem ko toucher jaar ci flanc yi mën a am dara Bombardier ku ko xam-xam ne changé na ci wàllu taxawaayam ci làmb parce que boo xoolee li mu bëree ak Modou Lo nga xam ne am na maturité bu mu am léegi boo ko touché du tax mu dajee day raam fermer gardam taxaw ci ay tànkam di la def donc mbër la bu nga xam ne naqari naqari naa bëreel naqari naa bougeel parce que am na doole mën na xeex te téléwul bëre moo tax euh, comme je di dit tantôt il faut nek à 200 indil bombardier ki ta ngas bu nga xamni kenn mus ko ko indi mun ci am dara combat la bo xamni lu nek mën ci am opposition de style la rapidité la vivacité et la technicité de Omar à l'assaut de la force et de la puissance de bombardier que le meilleur gagne lu nek mën ci am dormu daanu sax bayiwul ci